يجدد سنته فلا وإني أحمد للمصطفى نويت ما يجدد سنته فلا وإني أحمد أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله حسبي الله وما توفيقي إلا بالله الحمد لله الذي منا طلب إخلاص سعين ومراعاة الأدب من ينظر القلوب والسرائر دون الذي منا يكون ظاهرا mbokki julli di mbokki taalibe yi gannaaw ba ñu sante suñu borom subhanahu wa taala julliwaat ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant a Seex Xadim suñu yaakaari teeg ëllëg waaye di ñaanal Seex Muhammadul Muntaqa mu yàgg fi lool te ànd ak wér ak mboolem njabootuk Sëriñ Tuubaa gi yëpp ñu ngi leen nuyu bu baax di leen ziar waaye di leen nuyoo fi nga xam ne fi lañ leen baax a nuyoo muy suñu télé bii di Diatty TV muy suñu site YouTube ñoo leen nuyu baax di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay comme niñ ko baaxee def ak yéen rek ci programme yi diine nga xam ne dafay am ci région bi ak ci biir réew mi ak fu mën a nekk noonu lañ ko àndee ak yéen ñëwaat fii ci kër Pathé Kane pénc kër Pathé Kane mu nekk pénc moo xam ne mën naa ne pénc mu ñu miin la ci site ndax bari na lu fii teew lool tey nag dañoo ñëwoon ci jullit yi nga xam ne dañ koy taxawal chaque année moo xam korite la wala tabaski tey nag mu nekkan jullit yi ñu waroon ko ànd ñu war ko ànd ak Serigne Younus Bakke moom Cheikh Mouhamadou Mourtada ñu ñaan suñu borom mu yàggal ko fi lool gis nañ mboolem jullit yi nga xam ne danañ ñëw ci kanam incha allah seeni teewaay gis nañ ni bu ci kanamee jotaay bi dana dana kii lool ndax mën naa ne ñu ñu bàyyi ko ci koñ yi yëpp fi la ñëw di fi di fi jullisee loolu lépp li ko waral rek mooy rafetu ni Kër Pathé kan euh, seenu dëkkin waaye tamit diine joo xam ne am na fi loolu moo ko waral akuk taalibe xanaa kay di leen wax ngeen woy incha allah lépp loo xam ne rote na fi rek dañ lañ ko baaxee wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu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 صب اسم ربك الأعلى الذي قلخ فصوي والذي قدر فهدي والذي أخرج المرعى فجعله قصاء أحوي سنقرئك فلا تنسى إلا ما صاء الله إنه يحلم الجهر وما يخفي ونيسرك لليسر فذكر النفعات الذكر سيذكر من يخسي ويتجنبها اللصق الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيي قد أفلع من تزكي وذكر اسم ربه فصلي بل توسرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبخي إن هذا لفي السعف اللولي سعف إبراهيم وموسى الله أكبر سبحانه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 غير المحدوب عليهم ولا الضالين هل أتيك عديس القاسية وجوه يومئس قاسعة عاملة ناصبة تصلى نارا عامية تسقي من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريح لا يسمن ولا يخني من جوح وجوه يومئذ ناعمة لسعيها رادية في جنة عالية لا تسمع فيها لاخية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وضرابي مبصوصة أفلا ينصرون إلى اللبل كيف قلقت وإلى السماء كيف رفحت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 أما بعد فهذا اليوم يوم العيد لكل مؤمن مسلم محسن سعيد فاذكروا الله تبارك وتعالى فيه على كونه سرورا للنبي ولمن يقتفيه صلى وسلم عليه الله في آله وصحبه وكل من طلاه وأوصيكم فيه وبعده بملاسمة ما اختير لكم من الأخلاق والحقائد والأقوال والأفحال لوجه الله تعالى القائد وأعسركم فيه وبعده عن فعل ما لم يختر لكم من العبادات والعادات فإن ما اختاره الله تبارك وتعالى لكم هو الجامع للسعادات فطوبى لمن لا يلتفت إلى خير ربه ملاسما ما اختير له من منير لبه وويل لمن قاده إبليس إلى ما ساءه فإنه يلاسم ما أحصاه وأساءه قال الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فقصوه وقال الله تبارك وتعالى فمن يحمل مثقال صرة خيرا يره فطوبى لمن أخص ما أتى به الرسول عليه بآله وصعبه ما معطي السول وللذي عمته ترتخي إلى الخير لا إلى القدر والدير وويل لمن لم يقص ما أتى به المنتقى عليه بآله وصعبه سلاما من جاد بانتقاء وأوصيكم فيه أيها الإخوان لوجه من كفاني سوي العسل والحدوان بأن لا تفارقوا ما اختير لكم أبدا فإن مفارقته تجر إليكم ألما وكبدا وأنهاكم عن فعل كل ما لم يتبين لكم كونه الصوابا فإنه مما يوجه إلى خيركم الأجر والرضا والصواب ولا تطلبوا الكرم بخير التقوى فإن الكرم هو التقوى ولا تطلبوا العصة من خير العسيس المعس بجاه عبده نبيه رسوله الأعس فإن من أدبر عن الله تبارك وتعالى إلى سواه تركه مع نفسه وهواه ومن أقبل إلى الله تبارك وتعالى مع الوسيلة قال إليه كل ما كان يرتقي إليه من الجميل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 سيدنا محمد وآله وصعبه سوي الوفاق وعلى من طبعهم بإحسان في جملة الآفاق أما بعد فهاس اليوم يوم مبارك ولنا فيه شيء فيه لم نصارك فأحمد الله تبارك وتعالى على ما جاد به فيه للمنتقى عليه صلاماه بجميع مقتفيه فإن هاس اليوم يوم أكل وشرب وعتق بفضل من جاد بفتق الرتق فمن سكر الله تبارك وتعالى فيه فإنه يصفر بكل ما من الخير يصطفيه فاطلبوا الله تبارك وتعالى خيره فإنه تبارك وتعالى يصرف إلى خيركم ضيره وتوبوا فيه إليه تبارك وتعالى من جملة العصيان فإنه يغفر لكم ويقف إلى خيركم سوي التخيان وتوجهوا إلى ربكم بالكتاب والسنة والإجماع فإن الله تبارك وتعالى يكفيكم من أبوا فيه الاجتماع بجاهس القصوات المردية صلى الله تعالى عليه بآله وصعبه سوي الأرضية الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لم يتقس ولدا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 mbokki jullit yi fi teew mbokki taalibe yi ginnaaw biñ santee suñ boroom tabaraka wa taala julli ci sangu-sang yi seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam sant sunu yi àdduna ak alaxira muy xaadim rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di leen siyaar di leen baalu àq di len bal ak di sakku ci yéen ñaan te di len ñaanal di jital ci nuyo bi ak siyar bi sunu kilifa gu tedd gele ca Touba serigne muntaka Basiru Mbakke ñuy ñaan suñ borom yagal ko fi te wéral ko ba lim yene liggéeyal mamam ju bax ja muy sunu yakari adunak Allah ak alakhirah suñ borom may ko mu defé ko nam ko bëgge ci ànd ko ak mboolem jullit ñepp ak mboolem talibé yépp noonu itam la ñuy demee ba suñu kër maam Seydil Hadji Malick di nuyu njabootam yépp di jël nuyoo ba di ko teg ci xalifa général di Tidiane Serigne Mbaye si Mansour di ko ñaanal li ñu ñaanal Serigne Mountakha waaye di ko yéene itam li ñu yéene Serigne Mountakha noonu lañuy ñuy demee Ndiassane noonu la ñuy demee Canaba noonu la ñuy demee Kaolack Medina Baye ak Taïba Niassène yépp mboolem xalifa généraux yi nekk ci Sénégal yépp ñu ngi leen di ñaanal ñoo seen njaboot ñu ngi leen di yéene liñ yéene Serigne Mountakha di leen ñaanal liñ ñaanal Serigne Mountakha su loolu jàllee ñuy ñu leen di nuyu yéen waa kër Pathé di jël nuyoo bi di ko teg ci alimaam imam Serigne Abdul Quddus Cuun mu wàcceel ñu ko ci mbooleem njaboot gi yépp di leen nuyu ñoom ñépp di leen sant di leen gërëm di len jotuli itam nu yóbbu sunu kilifa gi nga xamantene moñu fi yabal muy serigne abdullah Mbakke ibnu Cheikh Muhammadul Murtada ak nu yóbbu sëriñ Abdul muhaymin Mbakke ibnu Cheikh Muhammadul Murtada ak nu yóbbu sëriñ Murtada Fall ñi ngi len di jotuli itam nu yóbbu sëriñ Xaadim jenn bi nga xamantene suñ dom la di sëtu serigne aïssa jenn ak soxna musli bi nga xamantene ne Cheikh Mouhamadul Mourtada ñoo bokk nday ak baay tem yor école al azhar bi ñu ngi leen di jot li nu yomb bu baax baax di nuyu suñ mbokki tiijaan yi nekk ci dëkk bi ak suñ mbokku xaadar yi ak suñ mbokku laayeen yi ak képp kuy wax ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah ñu ngi lay nuyu di la baalu àq di la baal àq di sàkku ci yow ñaan te di la ñaanal di nuyu suñ mbokku chrétien yi nga xamante ne suñuy dëkkandoo lañ yu baax ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkeel ci bis bii di leen wan feet gi ñoo ñoom ñoo ko bokk su loolu jàllee xam naa wax ji du gudd ndax euh, mbusoo bi yeeg ndaw kundaa yi xam naa fi mu ne am na lu seen xel nekk ba tax na xam naa dañ koy gàttal rek tënk ko ndax soo fi waxee lu yàgg damay ragal ñuy xund ci suuf kon nak ñu xamne bis bi moy bisu tabaski bisu tabaski nak kenn ku nek xamna limu doon ndax sunna la so xamantene sunu borom mi ngi ko wàcce ci sayidina ibrahima qalilullah alayhi salatu wassalam yonent bi sallallahu alayhi wasallam roye ko ci mom ñun yàlla royloo ñu yonent bi ndax dafa ñoo wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbolem jikko yu rafet yep làmboo na ko te gën ken gën ko rafet jikko kon nak yéen ñi nga xamante yéen ay aw xetam na ngeen roy ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam manam bu len def kenn ku dul yonent bi mu nekk seen way yonent bi sallallahu alayhi wa sallam momit suñ borom ne ko wattabiu wattabih millata ibrahima yow itam na nga top sa yoonu mam ibrahim kon ñu xamne manam roy mënta ñak ñun yàlla wax ñu la khad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasana kon manam kenn ku nek xamna bisu tabaski nim mu toll ñu roye ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xeet wi diko barkelo ba fi ñu toll manam ni ni nga xamante non la bisu tabaski démé ci yéen ñëpp ngeen xam ko Seydina Ibrahim mom la yàlla tan ci mindeef yépp ne ko yaay sama xarit واتخذ الله ابراهيم قليلا يو يونت يالا ibrahim yow laa def nga nek sama xarit te dañoo wax ne yàlla manul xarit nit man na xarit waaye yàlla manul xarit ndax yàlla xaritam daf koy nat firnde la ci rek suñu yaakaari àdduna ak àllaaxira moy khadimur rasul nga xamne banim fi nim ci ay coono la nekk ak nat ci kasso la wuy je boromam kon yàlla kep ku ko jege rek manam ci ay coono ngay nek ba ba ngay faatu manam lo fi am rek dala ko dimbulee waaye nekkul loo xamante manam maanaam loo fi wara am la ndax aduna moy comme niko ko bi sallallahu alayhi wasallam sallam addunya sitnul mumin wa jannatul kafir yonnate yalla ibrahim suñ borom daf ko def xaritam may ko mu dund lu dem ba nek mak amul dom suñ borom may ko ben dom bu gor bim ko maye dom bu gor bi bam commencé di am tiofel ci dom. ci suñ boroom feeñu ko ci gént ne ko rendi ko taxaw fale di ko xool ba xam doomam ji moo ko gënal yàlla léegi bi mu ne koo rendi ko Seydina Ibrahim ca ngëm ga mu fas yéenee jëfe li nga xamante ne maanaam moom la suñ boroom moom la ko suñ boroom digal bi mu ko fas yéenee jëfe daan ne du ma ko jëfe mukk nag ca waxtaanuma ak samay waa kër ndax waxtaan ak say waa kër dafa am solo ci loo lépp looy def soko deful rek man nga def lu reey reey reey rëy ca doo ko xam motax alquran wax ñu ne na ngeen di diiso ci mbir wax ko yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko na nga diiso ci mbir su ngeen deme ba xalaat yu rafet yi génn nga tan xalaat yi ci gëna rafet su boba nak na nga dogu wakkiirlu ci yàlla bàyyi ko ci loxo yàlla xamne yàlla moy doxal lépp wasawirhum fil amri fa isa asamta fatawakkal ala allah inna allaha yuhibbul mutawakkilin bi nga xamante ne yonent yàlla Ibrahim yàlla sant na ko loolu kim njëkk a laaj mooy soxnaam Haajara mooy yaay yonent yàlla Ismaayil ne ko ah démb damaa gént sama borom ne ma naa ren di Seydina Ismaayil Haajara ne ko jëfeet li la yàlla digal ndax yàlla moo la moom mooma moom moomoom Ismaayil alalam nga ko delloo delloo ko ko comme que laaj na la ko rek delloo ko ko ndax amoo benn sañ-sañ pour bañ koo def. mu dem ci doom ji wax ko ko ne ko yow sama doom man kat démb damaa gént ñu ne nañ naa la rendi nan nga ko gisee mu ne ko defal li la yàlla digal insha allahu rabbi di ma fekk ma bokk ci muñkat yu mag yi yaa bunayya inni ara fil manaami anni asba'uka fansur ma sa tara qaala yaa abati if'al ma tu'maru satajiduni insha allahu min as-sabirin mu mel na ñett yooyu war nañ cee jànge ñetti ndigal yi muy ndigalu yàlla ci jaam bi ak ndigalu borom kër ci soxnaam ak ndigalu wayjur ci doomam ñetti ndigal yooyu képp ku ko boole na nga xam ne maanaam suñ borom dencal na la aljanna te feet gi li muy rëy rëy rëy rëy maanaam ñetti ndigal yooyu ñu jëfe moo waral lii muy ndigalu yàlla ci jaamam jaam bi warul def lenn lu dul jëfe ndigal loolu ndigalu boroom kër ci soxnaam soxna si warul def lenn lu dul jëfe ndigal la su tegee su tegoo ci ndigalu yàlla ndigalu wayjur ci doomam doom ja warul am benn yitte lu dul jëfe ko lu dul wayjur ba wàcc na yoonu yàlla ndigalu yàlla rek la ñuy jëfee directement nga xamante ne doo ci xalaat dara waaye su dee ndigalu wayjur da ngay xool ba xam dëppoo naag ndigalu yàlla wala dëppawut ak moom su dëppawut ak moom doo ko jëfe su dee ndigalu boroom kër ci soxnaam mit soxna si day xool ba xam dëppoo na ak ndigalu yàlla su dëppawul ak ndigalu yàlla du ko jëfe kon ñetti ndigal yooyu moo waral feet gi bi nga xamante ne Seydina Ibrahim euh, bëgg naa jëfe ndigal la ba tër Ismaayil ba bëgg koo rendi suñ borom tabaraka wa taala gëdd Seydina Jibril ne ko demal ca aljanna nga wut fa kuy mu rafet nga dem ronul ko Ibrahim ne ko bis boo yeexee nag ba Ibrahima ren ni Ismaayil na nga xam ne dinaa far sa tur ci diiwaanu malaayika yi keroog Seydina Jibril laaf yu mu am firi na ko dem ci aljanna jël fa am xar ñëw ronul ko Seydina Ibrahim mu rendi ko bi mu ko rendee ba noppi daal di wëlbatiku yam ci Ismaayil daal di sant yàlla kon loolu mooy li nga xamante ni mooy sababu bis bi bi ci topp mooy. jamono ji li xew muy mbon gu bari gi ak yàqute jamono lolu manam dañ koy jëf waye kenn duko ko wax te war nañu baye xel ci na jamono ni mu mel suñ borom bëgg mu mel ni ca day gëna yakku lolu mom nañ ci baye xel bu baax li tax ñu man cee muccu nak moy ñu jël suñuy matuway ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mo wax ne laa tasubu dahra fa inna dahra huwa allah bu leen ŋàññi jamono ndax jamono yàlla la maanaam jamono nu mel rek suñ borom moo ko binde noonu waaye ñun itam yàlla am na ay matukaay yum ñu jox yoo xamante ne suñ ci jàppee maanaam jamono du ñu yóbbu muy alquran ak sunna ak ndigalu seexul xadim suñ ci suñ ci jàppee jamono du ñu yóbbu ndax kat loolu lépp alquran wax na ko bu yàgg alquran wax na ne. Euh, alquran mi ngi wax ne laa yastawi alxabiisu wa tayib walaw ajabaka kasratul xabiis yàlla nee na lu baax ak lu bon duñ yem mukk même su fekkente ne maanaam lu bon dem na ba not lu baax daan ne loolu nag li leen ciy génne mooy fa fattaqullaha ragal leen yàlla yaa ulil albaab yenn boroom xel yi ni ñuy ragal yàlla mooy nañ defar suñ jëmm ba mu sell ba nga xamante ne lu dul yàlla du ci nekk di jaamu yalla suba ngoon guddeeg bëccëg sax sax ci istighfar sax ci top ndigal suñ defee loolu ba nopi suñ njabot gi nga xamantene ne suñu njabot ñu ñu def liñu yalla digal ci ñom muy jangal len alquran jangal leen xam-xamu diine suñ noppé ñu jangal leen aduna waye ñi ciow ñep naan jamono ji dafa yaq jamono ji jamono ji dafa yaq ñu ci bëri dañoo jël seen seeni doom yobbu ko ci ñi yak jamono ji ñu leen di jangal ba noppi ñu di ciow mu dellu ci kalimatu haqqin urida biha al batil gi sayyidna ali wax baatu deug bo xamne ne ay ni an maanaam moo lal jël sa dom jitalo ci moom alquran jitalo ci mom xam-xamu diine ba pare yobbu ko fami yakko yàqoo mu bokk ca ñay yak nga ko di wër di ciow naan jamono ji dafa yak, jamono ji dafa yak, te yow ca ñak ca ña yak jamono ji nga bokk jamono ji li muy yàqu-yàqu am na ñoo xamante ne bokkuñu ci te ñooñu mooy ja nga xamante ne seeni way jur def nañ la leen yàlla digal ci ñoom kon mbir mi ci ñun la du ci kenn ndax ki ki bëgg a ñëw ci sa kër ne dafay gas kàmb bul nekk di coow naan ko doo ko fi gas jëlal peel comme moom su wàqee su su su wàqee benn peel nga tibb benn peel sotti ca su yàggee mu sonn dem loolu nag likoy dindi moy ñun ci bopam ñoy defar suñ bop defaraat suñu njabot suñ bëggee mucc ci loolu ndax yalla junj nañu ko la yastawil alxabiisu wat tayyib wala ajabaka kasratul fattaqullaha ya ulil albab kon loolu Misal mu leer nañ la lu ci dess rek ci ñun la dese ko am xel rek di nga mucc ko amul xel nak duggu ci kambu gi ba nopi di wër di ciow naan jamono ji dafa yaq jamono ji dafa yaq ci la yaq jamono ji ci yow la jitu boobu mooy tomb bu njëkk bi ñaareelu tomb bi mooy ñu ñëw ci maanaam jullit piir ak jullikat ñaar la yoo xamante ne maanaam jege na waaye bokkul jullit piir ak jullikat xam nga waxoon naa fii ci cantu sëñ Touba Diouf gi maanaam benn bayit buñ naan Touba li abdin muridin sadiqin lahumu bi xidmatin aw bi ubbin aw hadiyaati ne heure buñ ko waxee maanaam ñépp daanu jël te suñ ko déggee dëgg soo ko déggee dëgg dëgg dëgg maanaam bala ngaa daanu jël di nga xalaat ay at ndax loolu di ko mën a jéggi wala mënoo koo jéggi waaye toujours ustaas yaa ngi wax ci télé yi ak rajo yi ñu ngi def ay conférence lu ne ñu ngi koy def ce benn addisu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam benn aaya alquran wala benn waxu Serigne Touba rek defar na àdduna waaye duñ ci bàyyi xel nag ndax soo demee ci conférence yi maanaam addis yi nga xamante ne euh, xale yi xale yi nga xamante ne ñoo gën a suuf niveau nga xam ne seen njàng soriwul ñëpp mokkal nañ ko addis boo xamante ne soo doon wër réew mi ñëpp mokkal nañ ko waaye ba léegi réew mi jéggeegu ko nañ déglu bu baax nag addis bi ci njëkk mooy laa yuuminu ahadukum hatta yuibba li aqihi ma yuibbu li nafsia ñëpp ko mokkal yonente bi salaa sallam neena ab jullit ngëmam du man mukk ndare lim yéene boppam yéene wu ko mu mi jullitam ndax loolu mi ngi ci ñun kum nekk ci yow na nga yëkkati sa loxo waat ne addis ah, boobu mi ngi ci man bis boo ko waatee ne su fekkee nekkul ci man balaa déwe ne yàlla bu ma ko fekk ñu bëri dinañ faatu te ñu ngi koy wax ci mbedd yi xare yi di ko wax kenn dégg ko boobu rek doy na sëkk ñu ñëwaat ci beneen al muslimu man salima al na min lisaanihi wa yadihi jullit dëgg mooy ki nga xamante ne jullit ñëpp mucc nañ ci làmmiñam mucc ci ay loxoom booboot kan moo ci génn kan moo mën a taxaw waat ko ne maanaam jëfe na hadis boobu xam naa su dee amin ñu néew la de képp ku wax ne manam sama lamin jullit nyep mucc nañ ci ak sama loxo ku ko waat balaa déwén na nga faatu bi ci dess moy man kana yuminu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut yonente bi sallallahu alayhi wasallam neena na ku gem yalla gem bis bu mujju ba na nga wax aw yiw wala nga nopi ñaata yon lañuy wax lu yiwadi ñaata yon lañuy togn ñaata yon lañuy wax waxi jambur hadith bobu kan mo ci genn kenn gennu ci min islam islamil bar'i tarkuhu ma la ya'ni bokku na ci rafetu islam nit ki moy lu sayon nekul sayon neku ca kan mo ci genn xola manam jullit sa da nga gis yenn jullit ñi di khas yenen jullit yi te kat la ci gëna yéme moy suñuy khas, seen moromi jullit yi duñ xas ñi nga xamantene manam dañoo teggi yoon nga xamne ne la rew mepp di ciow duñ ko khas de dañuy dem ci suñu kilifa yu baax ku mel ne Serigne Touba ku mel ne Seydina Aji Malick ku mel ne Cheikh na Cheikh Saddu ñooñu la topp di leen wax lu mel ne xeme waaye loolu wërta yéem kenn ndax yàlla ba mu nee maay yàlla ba léegi am na ñu taxaw ne ko doo fi nekk yàlla ci teewul mu nekk yàlla. yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba mu tàmbalee ab wooteem am na ñu taxaw ne ko maanaam doo ko fi wootee te woote bi gis nga ko tey dañ na fépp Serigne Touba ba tàmbalee lu ne tudde nañ ko ko dem nañ ba naan dofu Maamar Anta Sari bi tey gis nga ko fi mu fi mu egg. kon nak lolu naka jek ba aduna commencé ba léegi lolu moy am nit ku bax rek lañuy wax lu bon mom lañuy sosal kon kuko deggati bum la metti na ko ñaanal rek ka koy wax yalla yeeram ko ndax xamna ne mom ku nara alku la rek waaw kon juróom yi ni ñent manam ñent hadith yi kep ko xamantene manam maanaam nga ko na nga xamne julit pir nga kep ko xamne nak safan ba nga def moy jëfewoo ko na nga xamne jullikat nga ndax kat Serigne Touba am na benn naar bu mas a ñëw ci moom mooy histoire boobu ngeen di dégg ci wàllu sàkket wa ceñ sàkket sëñ bi dem julli ji romb gis leen ñuy sàkket mu ne lu tax julli ji wuloon ñu ne ko dañ doon eggale tuuti mu ne leen fi ma fi bi ma fi romb fan ngeen tolloon ñu ne ko fii mu ne dagg leen ko ñu dagg mu ne dem leen julli ji ba ñëw tàmbaliwaat foofu sàkket wi egg nga xam ne egg na ci maanaam suñ noddee su yoree baraadab attaaya wala kafe da koy sànni ngir fonk suñ borom tabaraka wa taala ak fonk julli bi nga xamante ne naar bi gis na loolu taalibe yi am ñu ci yéex a julli naar bi daal di wax sëñ Tuubaa ne ko ah sa taalibe yi xanaa gisuñ aaya bi ci alxuraan bi yàlla di wax ne maa salakkukum fii saqara xaalu lam nakku minal musallin waa sawara suñ leen laajee ni leen maanaam lan moo leen dugal fii ci sawara dañuy tontu ne dañoo nekkul woon di julli xanaa sa taalibe yi gisuñu loolu ba tax ñuy yéex a julli fa waylun lil musallin ne ko am na xur wu nekk ci sawara itam sawara ci boppam day musli ci moom te maanaam yàlla jullikat ya la dugal waaw ko ne ko jullit ak julli bokkul fa waylun lil musallin ne ko am na xur wuñ naan waylun ci sawara la nekk sawara ci bopam day musli ci mom te suñ borom kat ya la fay dugal ñan ñan ñoo ñuy kat yi moy fa waylun lil musallin allasina hum an salatihim sahun allasina hum yuraun wa yamnauna al maun ñi nga xamantene julli jullik caaxaan rek lañuy julli te suñuy julli ngistal lañ ci jublu pour bañ nit ñi jepi len ak bañ leena mere moo ñuy julli waye suñ démé ba seen neek tëdd seen lal ngegenaayu xam nañ ne ay saay-saay pire lañ li yàlla wax ci ab jullit dara nekkul ci ñoom ndax kat inna salata tanha anil fahshaai wal munkar julli day tere day digle lu baax di tere lu bon waaye julli fukki at te maanaam tey nga gën a mën a def lu bon tey nga gën a mën a jëw tey nga gën a mën a soxar tey nga gën a mën a rëy xam nga ne sa julli googa fa waylun lil musallin ci lay dugg kon nag maanaam yàlla nañu bo yàlla boole ci inna salata tanha anil fahshaai wal munkar ويالنا نيو يالا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته صادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفره ورزق كريم يالنا نيو يالا بولا تي يالنا نيو يالا موسل تي للمصلين الذين هم عن صلاتهم صاهون allazina hum yuraun wa yamnaun al maun bi ci res ñu tëjee ko tomb bi Serigne Touba yi xam naa ne jataay bi fi mu toll nii ndaween yi ñu ngi ñu ngi xundu ci suuf sëriñ Touba dafa woolu Serigne Mbacke Boussa ba mu ñëw mu ne ko Mbacke Boussa juróom-ñeent a ngi yoo xamante ne képp ku ci jàpp ca jëfe ko di nga texe àdduna ak àllaaxira bi ci njëkk mooy ragal yàlla. ragal ku ragal yàlla ragal ku ragalul yàlla bàyyi fu bon bàyyi lu bon bàyyi ñu bon loo xamul bu ko wax loo mënul bu ko def loo moomul bàyyi ko fa boobu mooy première tomb bi ñaareelu tomb bi mooy dafa wax ne dara dara dara yàlla mi ku xam ci moom dara doo ko moy ci dara àdduna mi ku xam ci moom dara doo ko fàggul dara ndax dara du fi des àllaaxira male ku xam ci moom dara doo ko fàggul dara ba yéem ko ndax dara du fa doy ñetteel bi mu ne nit ki heure bu xëyee na xool bi boppam na ko doy sëkk te bañ a xool bi nit ñi mooy liñ doon waxtaane ci ginnaaw rek bari na koy xasaate ca la muy xasaate ca moom la nekk ndax nit lim am rek lay joxe mu ne nit ki heure bu xëyee na xool ayib yi boppam ayib yu bon yi nekk ci moom mu jéem koo dindi benn par benn nit ki xam na ne ku mën a wax lu dul dëgg la na fexe ba bàyyi wax lu dul dëgg ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam laaj nañ ko ne ko ndax julli dina njaalo mu ne waaw ñu ne ko ndax julli dina naan sàngara mu ne waaw ñu ne ko ndax julli dina fen mu ne déedéet xoola fen ni mu bëree na nga fexe ba fen dañ su fen dañee nee na nga fexe ba jëw dañ su jëw dañé nga fexé ba reuy dañ néna jikko yoy nga xamanténi moy dox sa digënté ak sa borom ba so jullé yalla duko nangu manam nga fexé ba jikko yoy nga raxas ko ci sa bop bam set ci xamné ne heure bo nga jël sétu sétu sa bop di xol yi sikk ci yow nga koy dindi ci bul xol ci nit ben sik ndax yow yaa ëpp sik fop nit nag du gis sikam nima ko manam misale rek manam moy fi ne so dugon ci toilette sa moromu julit genné fa so duggé da ngay dar say bakkan waye so fa duggé ba def li ngay def ba noppi so noppé do dar say bakkan ndax do gis sa xet waye yàggal na tilim fouf ki ngay sikkal lolo nañ ci baye xel bax motax moo bi ne manam nit ki heure bu xeyé na fexé jikko yu bon yi nek ci mom na ko dindi ben par ben légui so ca bolé néna di jaamu yalla bolé ca di liggéey bolé ci fonku ñaari way juram boole ci di dimbale jullit bu mu tane nee na du tal kenn ca suy dee di dem aljanna waaw nee na su fekkente ne jikko yu ba bon yooyu nekkul ci yow te loolu yaakaar naa moom la ko yàlla may ndax moom rek moo mas a taxaw ne suñu xel mii mësuñ cee xalaat lu bon suñu bët yi mësuñ cee xool lu bon suñu nopp yi mësuñ ko cee déglu suñu bakkan yi mësuñ ko cee xeeñtu suñu yaram wi mësta laal ci lu bon Sëriñ Tuubaa rek ko wax loolu jikko boobu yaakaar naa ci moom la nekk. nee na kon maanaam nit ki su xëyee na fexe ba ayib yu bon yi nekk ci moom mu dindi ko benn par benn ba set wicc su fekkente ne maanaam ayib yooyu maanaam nekkul ci moom te moom la ko yàlla may nee na na fexe ba ayib bañ a dugg ci moom te nee na ñaar yooyu benn bu ci nekk doy na sëkk liggéeyu àdduna bi ci des bi mu demee ba ci mujjëm moom sëriñ Touba woolu na mbooloo mu bari ñu fekk ko ndiarém ñepp génn ci penc bi tok biñ toogee bam yagg señ bi génn bi ñëwé xaj mbolo mi ñeenti xaj né benn mbolo mi nañ ko fété penku bi ci dess fété ko sowu bi ci dess fété ko salum bi ci dess fété ko gànnaar señ bi tok ci digg mbolo mi jublu penku daan né yeen wa penku dama leen di laaj xif lan ngeen xam ci luko mëna ñu daal di waxtaan kenn jug ci ñoom ne ko ñun waa penku de mbàkke xiif xamuñu lenn lu ko mën a faj lu dul lekk mu ne yéen waa sowu dama leen di laaj xiif lan ngeen xam ci lu ko mën a faj kenn jug ci waa ne ko ñun waa sowu itam day xamuñu lenn lu mën a faj xiif mbàkke lu dul lekk mu ne yéen waa saalum dama leen di laaj xiif lan ngeen xam ci lu ko mën a faj kenn jug ci waa saalum ne ko ñun waa saalum it day wax dëgg yàlla xamuñu xiif lenn lu ko mën a faj lu dul lekk mu ne yéen waa gànnaar dama leen di laaj xiif lan ngeen xam ci li ko mën a faj kenn jug ne ko mbàkke ñun day xiif xamuñu lenn lu ko mën a faj lu dul lekk mu ne yéen waa penku nee ngeen xiif xamu leen lenn lu ko mën a faj lu dul lekk yéen waa soowu noonu yéen waa saalum noonu yéen waa gànnaar noonu man Ahmadou Mbàkke mii toog di wax ak yéen day man maa ngi leen di seedeel ne xiif xamuma lenn lu ko mën a faj lu dul lekk ni mu leen wóore na nag xiif amul lenn lu ko mën a faj lu dul lekk na leen wóor ne mbugalum bàmmeel amul lenn lu ko mën a fekk lu dul jaamu yàlla man ahmadu Mbacké nag suñ borom defal na ma mbalaanum sutura moo xam ne ci àdduna kuy dund di sangu ca biir waaye mbalaanum bàmmeel borooma koy ràbbal boppam na ngeen sax ci jaamu yàlla ak liggéey wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu waaw comme ñu leen ko waxee rek ñoo ngi taxaw ak Serigne Ibrahima Thioune fii ci julli kër Pathé gi mu bokk ñi nga xam ne ñooy organiser wàllum julli gi ak yooyu noonu ndax gis nañ ne wax dëgg yàlla ko gis ñaqaw yi di siit ci kanamam gi mën naa ni am euh, moo tax ci suba ba léegi daal ba ñu yeewoo ba léegi moom moo bokk ñi nga xam ne ñu moo organiser lu jëm ci wàllum bis bi ak ba nga xam ne organisation bi jaar na yoon ñu ko doon laaj ñoom yan coono lañ jànkoonteel ci organisation bi ak nan lañu gisee julli gi ba tax mu jàll xool salaamaaleykum mbokki jullit mbokki taalibe yi ñoo ngi leen nuyu di leen ziare di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen di leen balu àq te di leen jéggulu tamit bu wér tey ñaan feet gi ñu passé ko ci jàmm ak salaam di sant yàlla tamit ci taxawaay bi am na solo trop macha allah mais lu ñu war la rek parce que comme suñuy bàyyi ko doon taxaw dem ba mage ñun mënuñoo def lu dul taxawee ko te wax dëgg yàlla taxawee ko mooy li ñu war parce que ku am lu kenn amul da war a def loo loo mënul da nga wara def ba def lo mënul parce que boo xoolee mën ni région de Thiès bi wala tundum wi fi la fi sëtu seigne Touba di jité kon lolu doy kon nak wax deug yalla motax lepp luñ ci def rek suñ yene ëpp na lolu té lepp luñ ci taxaway ba def ko rek suñ yene ëpp na lolu parce wax deug yalla sant nañ yalla bu baaxa baax waaw waaw dañ doon laaj ne gis naan euh, gone yi nga xam ni man suñuy rakk lañ ak ñun ñi nga xam ni mën naa ne egseegun comme fi ngeen toll nan la ñu def maanaam lan nga leen soññ loo xam ni bis dina ñëw ba nga xam ni ñoom mën naa ne bu ayee ñu defee ko nañ ko war a defee daal ndax gis nañ ni yéen na ngeen ko war a defee defee ngeen ko noonu kon nañ leen seen seen i rakk yi nga xam ne ñoo nekk ak seen i yi nga xam ne ñoo war a ñëw ñu mën koo taxaw comme ni ngeen koy taxaw waaw loolu moom liñ ciy wax bariwul parce que lu baax la lu baax moom amul gone amul mag parce que ñun ñi nekk nañ fekk suñuy mag nekk fekk suñuy baay te du tee dañuy jàpp fan war a jàpp euh, nekk ndaw du tee boo gisee lu baax am na foo ca war a jàpp nga jàpp ca fa nga xamante ni foofa nga tollool dox jëm ca kanam bu ko defee ëllëg foo bëgg a yegg di nga fa yegg mais soo ne damay xaar ba nekk mag doo ko liggéey boo nekkee mag doo tàmm liggéey kon bi nga nekkee ndaw ci ngay tàmmali di góorgóorlu di ziare sëñ Mourou bu baax nag wax dëgg yàlla ci taxawaayam ci bis bi am na solo trop tey jii da koo fekk génn rek waaye wax dëgg yàlla lépp moom la parce que ñun fajar sax daf ñuy yee pour ñu ñëw ci taxawaay bis bi kon loolu kooku kenn amul fayam wax dëgg yàlla. waaw jërëjëf ñoo ngi lay sant bu baax di la gërëm di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala ba nangul leen liggéey yëpp salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaw mbokk yi comme ni ñu leen ko waxee rek ñoo ngi nga xam ne dañ koy doon def di ànd ko ak Serigne Abdou Mbacke moom Cheikh Mor Cheikh Mouhamadou Mortada ñu koy ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak wér waaye tamit dafa ñëw ci teewaayu Serigne Abdou Mbacke magam ndax ku nekk xam na ni mën naa ni moo ëpp lu mu fi jiite waaye bu demee ba am ngànt nga xam ni ñëwul rek day da koy yabal waaye mu nekk wutal goo xam ne ku mat wutal la gis nañ ponk yooyu am solo yoo xam ne su li ñu ko ci ci xutba gi mu nekk xutba goo xam ne Serigne Touba radiyallahu taala anhu moo ko bindan mu nekk xutba xam suñ Serigne bi la ci la jaamu yàlla waaye tamit eh, eh, topp sunna si Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi biddaa ak mboolem lépp loo xam daal day xeetu jaamu yàlla rek su sëriñ bi mu ñu koy digal ci biir xutba gi waaye tamit di bàyyi loo xel taalibe yëpp ak mbokk mboolem jullit yëpp ni leen bis bi bisu jaamu la waaye di mooy bisu jaamu yàlla la ci lekk ak naan waaye tamit ci yaatal njaboot gi ak ci sañse ak lu mën doon waaye tamit nekkul bis boo xam ne dañ ciy dem ci bëri mooykaay yi te képp koo xam ne def nga ko da da nga ko réccu wax dëgg yàlla sunnatu